ma ñëw seet sama xarit ah, sama kilifa ah sama sama kii dama ko bëgg Lamine yow dama laa bëgg yow waaw ku la laal ma waaw kay. <laughs> Mbaye ci loo waaw foo ma loqatee yow. waaye dama laa dama laa romb rek fii nga toog mais kon fii yaa ko kii. fii suma benn xarit. Ah. bu jógee Allemagne. waaw ñu koy wax Lamine. moo ubbi affaire bi. Ah. moom jaayul sax day maye. ah day maye. parce que safar bee tax. ah loo am mu jox la télé loo am mu jox la salon loo am mu jox la ay bagages. il faut ma ñëw nag. ah parce que bi ñëw nga indaale safar ak Yves. ah Yves kay dafa ñëw nag. mooy safar ak man waaw ah, moom maa ngi moom ca wal fajiri ba tey. waaw dala bëgg de dara ñaawul. dala bëgg de macha allah macha allah macha allah dala bëgg. ah, ah euh, euh, euh, Lamine waxtaan bi xam naa dama koy kii dama koy dagg ñu ñu waxtaan parce que sénégal yi gisatuñu la te Lamine fooram Lamine nga xamantene su waxé ñepp déglu ko Lamine nga xamantene suñ ko daan déggul suñ ko do déggul sax dañu duggal ay image am Lamine dem na ba su daan sol yéré sax yére bi buzz lay doon lo def mu nekk woon buzz ah ñu jékki-jékki gisatuñu la ci dara gisatuñu la TFM gisatuñu la fenn fenn fenn affaire kenn xamul lan la. mais euh, euh, Mbaye xew xew ayu. non xew <laughs> non xew. <laughs> Euh, damaa xew yi. non xewoo parce que keroog non Mbaye si dama xew yi. non non xewoo parce que keroog si lamb bu mujj bi rek say image. gis nañ ko fépp bi nga waxee rek dañoo partagé lépp. mais mbay waaw di nga toll benn moment xam ne. Mhm. sa noppi. Mhm. day gën sa wax. Mhm. day toll benn moment boo xam ne. wax naa la ko waxaat la ko. waaw taxaw fépp ne baax après nga wëlbatikuwaat ne bon na. alalu ko sàggan. luñ ci wax. ah ku farlu moo koy jël. waaw ah loo bëgg wax foofu da nga bëgg da nga am feneen fooy dem. des na tuuti dinaa def conférence de presse. waaw. parce que man kenn du ma rey. Mhm. kenn du suul te deewaguma. Mhm. te mbay maa ngi lay wax loo xam ne mesuré ko nag ci àdduna yëpp. man maay journaliste reporter bi télé yëpp soxla. Mhm. dégg nga ma. waaw dégg naa déggoo ma de. dégg naa la xam déggoo ma. non xam <laughs> mbonaat moo xam la ca dégg ba moom muy nuuru ba ci ban bi. yow loo ci xam-xam-xam li ma ci xam moo ëpp. man mi koy dund. man mi ñuy so contacter. Mm-hmm. dama ne amul télévision. Mm-hmm. bu nekk ci Sénégal bu bëggul ma liggéey ak yow. mais mais mais. may ma tuuti rek. waaw yàlla dogal ma nekk Futurs Médias. Uh-huh. waaye dama lay lépp rek laa lay jox. Mm-hmm. alalu ku sàggan. farlu moo koy jël. ma may may ma. Uh-huh. dafa am benn wayu Youssou Ndour